kii moom sama benn copine de classe la woon quoi jamonoy cm de nag benn jour ñu toog prof yi nañu suba inspecteur day ñëw il faut que vous soyez sage lu ma leen wax ngeen def je vais dessiner un pigeon au tableau et quand je dis pie vous dites jon prof di essayé nag ne pii ne jon mu ne pii ñëpp ne jon def ko trois fois ñëpp tontu ñu xëy ci suba si nag inspecteur bi ñëw toog sama wet man sama copine bi nag ci ginnaaw quoi dernier banc moom ndaare la woon man ma nekk avant ndaare léegi nag prof bi dem dessiné pigeon ci tableau bi mu ne pii kenn faalew ko mu ne pii ñëpp noppi fekk sama copine bi nag mu ngi yëkkati loxo naan muse muse muse moi muse moi muse moi muse prof bi di ko ignoré nag bañ mu parxoor ko ci kanam inspecteur bi prof nag inspecteur bi ne ko mais monsieur Lo il faut interroger cet élève là. re monsieur nag fekk insi mu ngi mer bay toj mu xool ko rek ko anta pii mu ko tax bi tax